si yéene ci dalal euh, Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay naka suba si. am na ci solo Walf Quotidien lu mu ñu jukkil tey. waaw yéen a kaay gi Walf Quotidien dafa xëyee dellusiwaat ci remaniement ministériel te maanaam jooyti nga xam ne dañ ko ci gouvernement bi. Mhm. finalement nag président Macky Sall lañ ci jàpp lañ ci jàpp daal dafa doon déplacé ay pions noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale ndax am na ci ñeenti ministères yoo xam ne ministère yu amoon solo mhm. euh, moo lu mel lu ci Euh, jël na ko daal di koy jox euh, Sidiki Kaba euh, moom mi di Antoine Diome mu yóbbu ko fële ca ministre du pétrole noonu la ko yéen a kaay xëy fësale Euh, Aïssata Tall Sall mu jëlee ko euh, euh, ministère des affaires étrangères mhm. yóbbu fii ci Ismaïla Madior Fall moom Aïssata Tall kon finalement mujjee nekk ministre de la justice mu nekk daal daanaka mbir moo xam ne ni moom la yéen gi daal di ci amalo taxaw seet leneen itamit loo xam ne gi wàll fëkk dañoo xëy na ko fësal te mooy mhm. tirage au sort mu soxal kan 2023 tey ji si ngoon lay doon waaye nañu jàpp Sénégal tey ji te nañu fas yéene xam ana ci ban pool fas yéene ñu jukkil yéen kaay gii di laas dafa xëyee dellu soit ci lu jëm ci ci nga xam ne mee ko dañ ko ci gouvernement bi lé ñu bari ngi doon xaar coppite yu mag amul ay changement mineur lañ ci nemmeeku noonu loo ko yéen kaay gi xëy fësale moom Amadou Ba nag yëkkatoon ay kàddam daal xam ne gouvernement bi gouvernement de combat la nangoog euh, le quotidien le quotidien ne remaniement ministériel Amadou Ba taxawal na gouvernement euh, taxawal na équipe de

continuité yéen kaay gi moo xëy fës lu ni mel daanaka ba ñu toogee juróom-benn weer di juróom-benn fan kon di xaar gouvernement bu bees bi de mhm. gouvernement bi ñëw na waaye daal amul dara lu bees loo xam ne meeku nañ ko si noonu la ko yéen gi di Sud Quotidien xëy fës yéen kaay gi di tribune lu jëm ci remaniement ministériel te moo di joyante gi nga xam ne meeku nañ ko ci gouvernement bi Euh, yéen kaay gi dafa neexul ba neexul waaye gouvernement Macky Sall taxawal na gouvernement boo xam ne nii li ko tax a jóg mooy doggali sénégalais yi noonu la ko yéen kaay gii di la tribune xëy Fesal Abdoulaye yéen kaay gii di 24 heures 24 heures ba tey xëy dellu soit ci lu ni mel nee na Amadou Ba bu yeboo mu gën a fegu te xam ne li mooy dernière chanson mm-hmm. maanaam mooy chanson bu mujj noonu la ko yéen kaay gii di 24 heures xëy Fesal leneen itamit loo xam ne yéen kaay gii di 24 heures xëy na ko Fesal Abdoulaye te mooy Ziguinchor jamono ji ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi fa bàyyi maanaam ñu ngi fa teg seen i gët mm-hmm. euh, li ko waral mooy tey ci lañu fas yéene xam euh, ndax Ousmane Sonko Euh, Tigui dafa war a bokk ci élection présidentielle wa wala am déet noonu la ko di 24 heures xëye Fesal Abdoulaye. yéenekaay euh, di critique xëyee ba tey ci gouvernement bu bees bi ba nga xam Ba taxawal na ko yéenekaay gi nag duppee ko Amadou Ba mhm. ak euh, dañu wax la nga xamoon laqatu ci gannaaw ci gannaaw gouvernement boobule noonu la ko yéenekaay gii di critique xëye Fesal. l'info wax waaye ña nga xam ne ñu la fa Amadou Ba nag yëkkati na ay kàddoom daal di xam ne gouvernement bi gouvernement de combat la gouvernement de mission la yéen kaay gi di defoo ci loolu la xëy dellu soor ak yor-yor bi lam ñëw yéen kaay de siège euh, musical la yéen kaay gi moo xëy dellu soir ci lu mhm. mhm. ba neexul waaye gouvernement wala Macky Sall sax ci loolu Ba d'évidence yéen kaay gii di l'évidence ne tout ça pour ça ñu bari dañ doon xaar Sénégal jël ñu indil ñu gouvernement boo xam ne daanaka dana am coow coppite yu am solo yi ci am waaye daanaka dañ gis ne coppite yi taxu koy demee noonu tax mm-hmm. yéen kaay gi di l'évidence ni mel yéen kaay gi ne neexul bu neex waaye diggante Macky Sall ak Mariama Sarr ak cofeel dëgg mu am seen diggante mhm. ndax gis nañ ne moom soxna si ba mu nekkee ci gouvernement bi léegi mës mës cee génn noonu la ko yéen kaay gii di l'évidence xëy fësal réew mi yéen kaay xëy dellu si waat ci gouvernement bu bees bi lee ne daal ñu ngi doon xaar ab am ci gouvernement ko yéen kaay gii di réew mi xëy fësal euh, ministériel affaire de banni de bleu et de chaise mhm. musicale yéen kaay moo xëy fësal mhm. ne am na si ñoo xam dañ leen dàq muy ku ci mel ni moom Mamadou Talla dàq nañ ko Oulimata Sarr dàq nañ ko Sophie Gladima Siby dàq nañ ko waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañuy dellu si am si ñu bees ku ci mel ni Thérèse Faye Diouf ku ci mel ni euh, maanaam

combat boobu lañ bëgg a taxaw mhm. Luc Nicolaï moo ko taxawal ah. guy gi yëkkati na ay kàddam nag daal di aartu Ada Fass xamal ne ko su fekkente ne mën ngay jéem a waaxu dinaa delloo sa place <laughs> noonu la ko guy gi waxee waaye Ada xamal ne ko daal yow màgget nga li wetoo naa la duma naa la daan li mhm. gi moo xëy dellu soit ci lu ni mel mhm. Luc Nicolaï ne combat bi nag la mu ci jubul mooy def la mu defoon ci diggante combat Modou ak Balla Gaye ci